إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني أخاذب النصارى Touba Milano ci bisu xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ci Feera bu Malpensa bu Milano te ren nekk treizième édition bi euh, xam naa ginnaaw bi ñu nuyoo bokk yi ziyaare leen euh, di leen présenté sunu jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dalal tey muy Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil euh, ñu xam ko ci ku tasaare xam-xam mu nekk ci organe dafa taxaw taxawaay bu am solo muy rajo xasida online ak télévision Touba Monde bi TV xamna ni di waxat rek bokk yi di len jalé sunu kilifa googu nga xamné mom mo fi bayiko muy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Al Amin nakon al khalifa al am li taifa al tijaniya don taxaw taxawayu am solo nekkoon ku bëgg bokk nekkoon ku bëgg diine di taxaw ay taxawayo xamné ay taxawaay am solo la. mu nekkoon keno boo xam ne keno bu amoon solo la ci euh, tariqa bi ñoo ngi koy jaale umma bi di ko jaale mbokk yi nga xam ne yëpp ñoo bokk ci ak tariqa ya rawatina bokk yi nga xam ne ñoo bokk ci alxadra malikiya di ñaan sunu borom dolli ko yërmande sunu borom dolli ko njëggalam ci moom xam naa di dikkaat rek euh, sëñ Ibrahim ginnaaw bi la nuyoo siyaar la euh, comme buñ ñee bisu xasida te xasida yi nekk loo xam ne lu yaatu la waaye mu mel ni sëriñ bi dafa waxoon ni murid bi am na fu mu war a tàmbalee waxoon ne isabtadal muridu bi tawxiidi wal fiqhi an tasawufi almajidi muntahijan madhaba ahli sunna maa aljamaati naja min fitna kon mu mel ni sëñ Ibrahim fitna ji nga xam ne tey seetlu nañ ko ci ndaw yi ñu sóobu ko ba wan gannaaw li nga xam ne moom lañu sëriñ bi digaloon ana yan saafara lañ jàpp ni bu ci ndaw li tegoo mën naa saafarawu ba fëkk gi nga xamante ni lu ëpp ci ndawi jamono ji euh, mbir yi fëkk ne leen ko ñu nekk ci loo xam ne ñu ngi koy mbubboo ak di ko tuddoo naan sëriñ bi la te ku ne xam ne ni sëriñ bi lu sore ak loolu la sëñ Ibrahima. asbillah bismillah inni waliyillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen siyaare Eh, di jëte du nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal itam suñ jëwriñ jooj nga xam ne moo fi jóge muy sëriñ Abdou Aziz Si yal na suñ boroom dolli ay leeram sëñ waa daan ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la sant yow itam ci taxawaay bi nga xam ne waxtu wu ne yaa ngi koy amal ak itte ji nga xam ne am nga ko ci liggéeyub sëriñ tubaab bi rawante na ci média bi nga nekk muy Mafatihul Bichri nga xam ne tur rek doy na ab tegtal mu mel ni noonu nga ko waxee muy ndaw ñi ak mag ñi ñun ñëpp doo diir jëm ci xaside yi mu mel ni xaside nag buñ ko waxee suñ delloo ci bayit bi nga xam ne moom la sëriñ bi tënk dafa mel ne Eh, ci biir bayit woo mën nañ cee dégg ne eh, mbindam sëriñ bi lépp moom la nii boole mu doon a tudd xasida ngir li wax ne hadayta bi aqdi wattasawfi walfiq iyaali bi zikri maasalaati wa bilmadxi kon mel na ne sëriñ bi dafa wax ne eh, jubal nga sama mbooloo jubal nga ñi topp ci man waaye nag sunu boroom mi ngi leen jubale ci xam-xamu tawxiid tasawuf ak fiq mu door a indi nag li ñuy wax ak zikr ak madh ak salaat loolu nag dafay mel ni liñ ci war a mën a dégg mooy euh, taaliba bi ni nga ko waxee ci tàmbali bi war naa mën a jàng xam-xamu tawxiid war naa mën a jàng xam-xamu tasawuf war naa mën a jàng xam-xam fiq te loolu sëriñ bi dafa waxan ne maa leen warlool bind gi kon moom mel na ni la ko waran def na ko waaye ndax ñun li ñu war muy jàng gi ñu ngi koy def te kenn ku ne xam ne ne ni ko waxe ci ni ko sëriñ bi leerale bind na téere yoo xam ne suñ ci sukkandikoo mbooleem ñett yin wax ci tàmbali bi lépp mi ngi ci biir muy lu melni ni de zikhar nga xamne doko da ko tuddee yóbbulam ndaw ñi defaat tasidu shibaan tuddé ko yobulop waxambaane yi kon melni ni joggé ci état bu ndaw état bu waxambaane mo ci top kon mu melni digënté bobu nak day def digënté bo xamne euh doomu aadama bi fi la wara profito ci la gor gor lu ba xam ci lu bari ngir ñaari étape yooyu su ci nit ki rek la ca day daal jafé waaye gis na ne bind na yeneen téere itam lu mel nii maxaalixul niiraan mu naawari sudóor mu layinu sudóor masaalikal jinaan jawharu nafis ndax joxa daal xaaj mawaahibul xudus saadu sawi taalim saadatu tulaab ak mboolem téere yu bari yoo xam ne sëriñ bi bind na ko te ragal naa ne njàngale moom mu su ne jiitu na ci nun ñu door cee teg nag li mu wax ne bi zikri masalaat yi wabil matxi mel na ne jafe-jafe yu bari yoo xam ne mi ngi am man naa wàññi kon nag euh, li may soññ sama bopp rek di ko soññaan ñëpp ñu fexe ba ni ko sëriñ bi toftalee ñu itam ñu jéem koo doxale noon kon suñu waa daan loolu doon tàmbalee waxtaan jërëjëf sëñ Ibrahim muy ubbee bu am solo waaye ci biir loolu nga wax ci xasida yi euh, bu ñu xoolee lu mel ne naxaju xadaa ilxaaj ndax sëriñ bi mu ngi wax ni ah, nekk na ci ay jikko ak ay teggin yoo xam ne képp koo xam ne jaar nga ci dana la wommat jëmale ci ak jub fiihi min al axlaaqi wal aadaabi maa sa yaquudukum ila sawaabi ba tey waxaat ne fiihi min al wal ifaada maa laa lu minhu zu iraada wane kon ni ak jub ak ak jariñe ci nit ki nga xamante ni yokkutut ba noppi am pas-pas mu ne muy muy dem sax bay wax ni maanaam ki nga xam ne àgg na ci mustawa ba gën a kawe mhm. ak ci ki nga xam ne amagul benn mustawa mhm. mën nañoo jariñoo ci njariñ li nga xam ne def na ko ci naxju boobu mhm. kon ndax tey lii ñuy jàmbat ci ndaw ñi naan dañoo ñàkk kersa dañoo amut teggin ndax lii ñu sëriñ bi indil tey jotul tey kilifa yi nag am ci ay taxawaay ba ñu dugal ko ci sunu enseignement ngir mën cee tabax sunuy ndaw jërëjëf suñu waa daan eh, laaj ngi laaj solo waaye jàpp naa ne loolu farata la farata la joo xam ne bii su fekkee ne bëgg nañ saafara jafe-jafe yi nga xam ne mën na ne ñëpp ñu ngi koy dund rawatina ndaw ñi faw ñu dugal njàngalem sëriñ bi ci biir mboolem barabu jàngukaay rawatina nax ju bi ni nga ko waxee ndax sëñ waa daan boo seetloo ci biir bi dafa wax ne mag ñi ci boppam ñoo ñëw ci sëriñ bi sàkk ci moom mu bindal leen téere boo xam ne bii dafay làmboo ay teggin xam nga ki nga xam ne dafa yaroo ci kippaar ak sëriñ bi sëriñ bi di ko digal muy def te ñaari sax duñ def lu leen di tere waaye wëlbati ko nag doyloo woon loolu wat ci sëriñ bi nag sàkkuwaat ci ñoom ci sëriñ bi mu bindal leen téere boo xam ne bii dina làmboo ay teggin kon jàpp naa ne ñun ñi nga xam ne nag xay na gisuñu sëriñ bi tey bari na yoo xam ne gisuñu ku gis sëriñ bi kon jagal naa ne gannaaw ñi yaroo ci kippaar ak sëriñ bi ñoo dem ci sëriñ bi sàkk ci moom bindal leen ab téere kon rawatina ñun ñi nga xam ne dinoo ñëw ci ginnaaw sëriñ bi te noonu ko waxee ci tàmbali ci bayit yi sëriñ bi ne ne fii mil irshad maanaam li ñu wax ak njub nga xam ne ni ko sëriñ wax waxle njub ci la lépp nekk kon mu ngi ci biir téere bi aadab bi teg soxla yi liñ soxla ci ay teggin sëriñ bi lëm na ko ci biir téere bi te am na ci bayit woo xam ne bu fekk ni ñun ñëpp ñu ngi koy dund bayit woowu rek daa doy sëkk mooy fi muy waxa ne ki la mag na ko jox cëram mag na nga ko mal ki nga xam ne yaa ko mag na ko yërëm te xam ne dangaa xam lu mu xamut ki nga maaseel nga def ko ni sa bopp ragal naa ne ñetti étape yooyu kenn mënu cee mujj nit ki danga koy mag wala bay laa mu mag la wala ngeen maase ñetti yooyu nag ragal naa ne bu fekkee ne kenn ku nekk ci nun yaa ngi koy jëfandikoo dina doy sëkk ay teggin ci biir itam eh, am na ci foo xam ne Serigne Saliou mas na koy leeral yal na ko yàlla fay muy wax ne. sering bi dafa wax ne li ni wax ay teggine soko sakku da ngay japp ne lula waral nga diko def waye sax jeerul mu di wut ay andano xam nga wax na ci bir tere bi ci bir itam mi ngi ci def ne kep ku ñew ci yow di sakku dara su fekke man nga ko bu ko gant ngir lool soko defé sun borom mo lay teral di sakku tukkaramu wa in samexta man yakun akbara minka muy beneen bayit boo xam ne da jox ne ki mag su ñëwee du sàkku ci yow dara itam ko tilkal xaaja lillaahi tilkal xaaja maanaam li nga koy defal nee na nga ko def ngir jëmbe yàlla lillaahi tilkal xaaja kon looloot mën nañ cee dégg ne dimbalante ci suñ biir bam sëriñ bi indi na ko ci biir nax ju muy njàngale yoo xam ne bu fekkee ne mag ñi ak ndaw ñi ñëpp diñ cee tënku tënku lu bari dina saafaru am na ci beneen bayit boo xam ne itam mi ngi ciy wax ne eh, nanga nga jàpp ne yow koo gis yaa war a màggal te yow kenn warulaa màggal xam nga lool su si doomu aadama boo jikko woon noonu rek jàpp ne koo gis rek yow kii moom a gën te yow gënoo kenn xam nga daal ko sëñ bi moom loolu Euh, day jikko yoo xam ne bu fekkee ne nax ji bi dina koy xañ na ñëpp déggundoo arab sax ba man ko waaye jàpp naa sax am na nu mu doon dem man nañ koo gën a leer ci wolof noo xam ne bi xale bi euh, dina jikko yi nga soxla yëpp dina daje ci moom ndax jikko jikko mooy lépp teggin itam mooy lépp ndax dégg naa sëriñ bi daan wax ne tubaab bi am nan ay yar am nan ab yar waaye amuñu teggin mu ne li tax mu ne am nan yar mooy bu seen kilifa ñëwoon tey dugg ci barab bi ñoom ñëpp dañuy jóg taxaw màggal ko waaye nag bu waxee luñ da luñ moom dañ koy wedd ca sa sens te teggin baat bi daa firi bopp mooy teggiin teggin mooy li nga bëgg a wax di nga ko teggi ba wax li nga bëgg a wax ki ngay wax xam ko te doo jaar ci digg ba kon loolu mooy teggin teggin yooyu na nga xam ne moom lañ xamee ni yoonu murit nga xam ne du am suñ waxi bopp suñ jëfi bopp suñ xoolee ni bopp suñ colog bopp suñ toogee ni bopp kon loolu lépp nag yaakaar naa ne jot na nu jàngataat ko kenn ku nekk ci nun jël ci la say sa wàll kon daal yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee ci nax ju bi moom e, bari na bari goo xam ne bi bayit wu ci ne rek soo ko indee di nga ci mën a jànge lu bari kon daal ci gàttal jot na sunu ndaw ñi ñu jàngal leen njàngaleem sëriñ bi jàngal leen melokaanu sëriñ bi jàngal leen jikkoy sëriñ bi ragal naa ne lool su aman rek loolu dëgg-dëgg dal mooy tax lii wax njàng ndax am na ci beneen bay sëriñ bi wax ne ki nga xam ne day jàng te amut ak ragal yàlla nee na moom duñ ko jàppee borom xam-xam doon sax jeexal na fànn yëpp kon nun li jàpp suñ boroom xam-xam ci ci nun Eh, nga xam ne sax ñaare tey lu mel ni Sénégal bu ñuy lim maanaam ñi jàngut fi mu gën a baree dañuy wax ne région Diourbel la kon li jàpp ne moom mooy am njàng mooy France waaye ñoom jàpp na ne ki jàng arab wala ki jàng alxuraan duñ ko limaale waaye jàpp naa bu fekk ne taux boobu ko doon dugal diñuy jàng duñ wax ne ñi jàngut ñi ci ëpp région la ne kon ñoom liñ jàppe am njàng ak li am njàng jàpp naa ne soree jërëjëf sëñ Ibrahim looloo lu am solo la euh, surtout li nga wax sax ci wàllu teggin ndax sëriñ bi ci boppam wax na ni fa kasratul ilmi bi xayril adabi jaalibatun ilal aza wa taabi kon mu mel ne teggin lu ama am ama lu ama am solo la ndax euh, euh, nëxju li tax li tax ma ma ma wax ni la ndax jotul tey sax ñu ñu imposer état bi kilifa yi xamal ko ne ko nëxju dañ ko war a boole ci enseignement bi ngir mën a tabax suñuy ndaw ndax sëriñ bi da cee wax ay wax yu yéeme xola fi muy waxee naan wa huwa allazi jaala xusna al adabi yuxfi jahalatan wa qubhan nasabi maanaam comme li nga wax ci arab la mais jàpp naa ne war nañ koo mën a tarjama ci ay luxaat yu wuute yoo xam ne ñëpp dañ ci jariñu kon sëñ Ibrahima bu ñëwaatee ci bis yi nga xam ne moom la ñuy organiser muy bisu xasida mu mel ne phénomène la boo xam ne euh, ñun ñëpp nam nañ ko ni mu xewee fii ci Europe noonu la xewee ca senegal mm-hmm. waaye mu mel ne buñ ko dee jàngat dinañ ci gis ay sew-sew mm-hmm. sëñ Ibrahim ndax xitaab yi nga xam ne war nañ koo jox bokk yi nga xam ne ñëw fiy ñëw ñu di ko yóbbuloo ndax ndax xitaab yooyu nag kilifa yi ñu ngi koy def loolu tam lu mat a bàyyi xel ndax ku fi ñëw rek war nga mën a am yóbbal mm-hmm. waaye dafa mel ne xitaab yi dëgg-dëgg boo ko dee jàngat te di ko seetlu day mel ne kilifa yi Eh, xamuñu fi tolluwaayu jamono wala liy xew ci jamono ji xamuñu ko kon yan xitaab tey la kilifa yi war a taxaw di ko wàqanteeg mbokki taalibe yi ba képp ku fi jóge mën a am ab yóbbal boo yóbbaale ba déwén waaw euh, loolu day dafay tënkuwaat rek ci li doon leeral ci tàmbali bi muy euh, barab yu mel nii bu ñu fi dajee war na noo mën a fàttalente ci suñ biir fàttaleen ko ci suñ biir nag euh, day mel ni bayit bi ñu doon jàng léegi te sëriñ bi tënk ci li jëm ci wane paspas doomu aadama moo war a jiitu ci nit njëriñal pas-pas itam sëriñ bi wax na ko ndax dafa wax ne nafal aqaidi xurujul xal bi min kulli kufrin muminan bir rabbi ne ne pas-pas bu baax limi waral ci nit day tax julit bi xolam set wecc ci lepp lo xamne ne day waral ak wedd yalla tayit da fay nek julit bu set wecc bo xamne ne sun borom rek koy ñor te gannaaw serigne bi dafa wax ne moom eh, eh, yeesal li fi sallallahu alayhi wasallam indi won moko taxajuk kon nun war mana xam itam kin topp lii itteem ndax moom li wax ne buy liggéeyal sallallahu alayhi day sax ci di ko liggéeyal waaye nag ax di mu bi mastafa la wax day seet lim bëgg ku ko ca liggéeyal mu di ko ca liggéeyal waaye moom du xool mu bëgg mu liggéey ko ñu bari ci noonu nag liñ sëriñ bi digal ñaare day mel ni diñ cay doxe suñ sago waaye li nga xam ne ñoo ko tànnal sunu bopp day mel mom lañu jox gëna jox gëdd masalan da ngay gis ko xamne day organiser ak tiant dem ci serigne mi ne ko dama bëgg sante xam nga ko sa bop mu ne may la ci ndigal lool moy al izn moy li sun borom waxan sahaba yi bin ñëwee ci mom ne ko dinni fitnal ten bëgg fayu sun borom du wacc alxol def usina lohum may na leen ci digal xam nga lool bokku ak serigne bi moma digal waye nak lu melni magal nga xamne serigne bi mënu ko digalal bopam loolu mooy al amur lol moy julli xam nga sun borom bimu mu jina da nak wa amul axlak wa kon lol moy amru kon liñ serigne bi diggalal bopam nak ñaara day mel ni eh, nan tay doxé day yeex waye liñ dem nak sakku serigne bi day mel mom moom lañ jox gëdë jox gëdë kon li serigne bi bindal bopam nak nu ju sukkandiko day gëna wor ci dégg nak foog naa xalaat naa ndax sëriñ bi amutoon jot kon jàpp naa ne lu bind rek ñor na kon loolu mu wax ci aqaayid jàpp naa ne eh, sëñ waa daan lu jar a bàyyi xel la bu ñëwee ci fiq dafa wax ne nafahu silaahu saayi fii saahirin bilaa xata wa xayyi nee na njëriñal fiq mooy dafay sellal doxok nit ki maanaam ki bëgg a dem ci yàlla su bi muy jàng moo koy won yoonu sell ak jëf ju rafet tey musal ko ci lépp loo xam ne pakk la mooy ñoom tey xata yi da koy musal ci ak bew tey dafay rafetal saayiram di rafetal baatinam xam nga euh, suñ delloo ci mbindam sëriñ bi am na fu mu wax ne lii jàmmi lan na saahir yi wa baatini bi taahiri loolu man ci dégg ne day rafet waaye baatin day laab sëriñ bi nag daa boole woon ñaar yëpp soo ko gisee rek daw jëm ci moom soo ñëwee ci kippaaram doo fa bëgg a tey jóg kon melokaanu saayiram moo lay xëcc waaye nag jikkoy boppam moo lay bàyyi fi moom kon nag day mel ni boole ñaar yëpp lu am solo ndax sëriñ bi ñaar yëpp la ñaan lii jàmmi la na saahiri wo baatin ni bi kon sair mom day rafet batin nak day lap kon mel ni bude budé ihsan muy ci xabu ñëk ba da wax né barakatul ihsan. Islahul jam'i bihi yafusu bil qubuli al Nane ne ihsan limi waral ci ak doom aadama day waral nga am ak tuufu ci li ngay jëf day war itam sak top sun borom nungu ko manam say jaamu yalla sun borom nungu ko kon eh, so bolé ñett yoyu da ngay gis ne li señ wax ne khayru fi'ali ma udima waqa fi sunnatil muqtar hina ma yaqa nee na jëf ji sun borom japp jëf ju bax moy jëf ji nga xam kiko ki doon jëf do ko sukkandiko ci niko sallallahu alaihi wasallam indi yaqbalu rabbana fi'alan uqisat minha wa in lam takun minha nubisat xam nga baanu nubisat la jëfandikoo mooy su fekkee ne jaare nga ko ci ni ko salaa salaam waxee sunu borom doo koy nungu waaye képp koo xam ne nag yaa ngi jëf te jaarale ko foofu day mel ni luñ luñ coppate ci barab rek daal koy sànni loolu nag euh, yal nañ ci yàlla musal kenn ku nekk ci noonu war na koy bàyyi xel <coughs> moo tax mu ne wasaaxil ihsaan bit tasawuf fa huwa la si bi xayrin ikmalin yëfe kon daal siñ waa daan da ngay xam ne des na kon euh, euh, euh, taxawaay bi nga xamante ni tam ndaw ñi war nañ koo taxaw nag ci fonk nag njàng am ji bu bi xëy suba ba ngoon te jàng alxuraan waaye wax ne gën gaa ñetti isib war nga ko mën a jàng ci bis soo demeen ba xat sax ba mënoo jàngal xoraan ti kaamiir bi rek jàkkaar ak moom xool ko rek tegaat ko fi ne lool sax borom xam-xam yi dañ koy digle kon euh, alxuraan daa bokk ci li sëriñ bi digal ñi di ko jàng wax ne képp koo xam ne bi am murit nga digal naa la nga di ko jàng te soo seetloo ne euh, fi ne suñu waa daan bu fekkee yaa ngi am ak seetlu sëriñ bi maanaam mbindam li muy wax ne alxuraan moo ko may moo ëpp li muy wax ne salallaahu alayhi moo ko may ndax lu mel ni salallaahu moom li ëpp ci lu mu koy tudd. seetluwaat bayit bu baax nag. waaw su ko defee xaj na li ma li may junju Eh, di ko xam ndax alxuraan ni ko sëñ Ablaat woon dafa day sëkk rek wane ne eh, lim ci am néew na ku ko ci am ndax dane nit bind na ab kaamir ñëw teg ko jox ko sëriñ bi neen bi ko sëriñ bi nungoo ak ñaar loo xam da ko ne fa farixan kasatum di ci sóoratu bàq rek nga fàttee sàdda nee na wala esem ban ubbee téere ba sàdd googu rek moo ci màgg kon loolu Euh, ci nin ko mën a dégg ci bu gaaw rek day mel ni kon euh, mbooloo moom bàyyeen cim néeg nga ñëwaat ubbi néeg bi rek kenn ku nekk ñëw jox la loxo kon ku ñëwut di nga diw ñëwut kon day ne ni ñëpp jébbale seen bop sëriñ bi ni ko araf yëpp jébbale boppam waaw ah, ndax xam nga diggante boobu dafa gaaw ñu jox la kaamil rek nga mën xam na sàdd ak ni ni mel ci mm-hmm. bu doon aw araf la wax waye na sad la wax ba nopi nga mën xamne manki na kon lolu war na ci man jangane alcorane fi ko serigne bi tegan ko fa teg wax na ne loko massa jox day wax tegal waye alcorane rek mom la da nungul kon nu fonkat ko comme ni nga ko waxee woon ak selu ci ne ñaari ki jang alcorane ñaari di jang moy ep ak dal te bari na itam xëy na yu ni wax yoo xam ne ñaari boo dee boole ñaari day mel ni mën na laa. jërë ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi comme ni ñu ko doon waxee ci suba ba léegi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci bisu xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal fii ni ngeen ko gisee ci suba ba léegi ngeen ñuy topp ci mboolem jotaay yi nga xam ne ñu ko fi amal. di sant baax sëriñ Ibrahima ci jotaay bi nga xam ne moom ko doon seq léegi nii ak ki nga xam ne moo di sëriñ Warane Diop. ci yaatal bu am solo bi nga xam ne indi ngeen ko ci ak leeral yi ak itam orienté orientation yi nga xam ne joxe ngeen ko ngir liggéey bi war a màcc jëm foofu ah, ba tey kon mbokk yi ñu ngi toog ak ki nga xam ne moo di sunu euh, waajur mu di Serigne Ousmane moom itam kenn ci euh, ñi nga xam ne ñoo di waa dëkk bi di kenn itam ci waa daayira bu Touba Milano yàgg taxaw itam mboolem euh, xale yi tout tànk yi nga xam ne ñu ngi yëngu ci xasida yi di yëngu ci it mboolem liggéey yi nga xam ne ñoo nekk ci Serigne Touba gi kon xam naa moom it dañ koy bàyyi rek mu daal di indi yéenam ci bis bi wane itam li nga xam ne moo ci taxawaay gis-gisam kon xam naa sëriñ Ousmane ñu bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf sëñ Moustapha maa ngi lay nuyu waaye di nuyu ñi ma bokkal jataay bi di kontaan lool tey ci bi nu bokkee jataay bi man ak yow ak sëñ Ibrahima Ndiaye ndax wax ba mu seere manees na ko miim waaye wax bii am na seere doomi soxna yëpp tey ñu ngi ci Italie. Amérique Espagne France ñoom ñëpp ku fi ñëw huit lañ ko door ba huit heures ci ëllëg dimanche lañ koy def at mu jot tey ñu ngi koy defee fan Touba Milan di ko defee ci dëkk boo xam ne nag fii la sëñ Mourtala wàccoon fii la sëñ bu Bousso Dieng wàccoon fii la waa kër sëñ Bamba yëpp wàccoon fii la kër sëñ Bamba jëkk muy Touba Milan ñu ànd ci nag ak ndaw ñoo xam ni ndaw ñu xarañ ci liggéey bi lañu waaye ndaw ñu sawar ci liggéey bi lañu waaye ndaw ñu joxe seen bopp ba mu jeex ci liggéey bi lañu muy liggéey ban muy jëmmal xaside yi bëgguñu dara digluwuñu dara dégguñu dara lu dul xaside yi ku dikk fii tey Norwees ñu ngi fii Gabon ñu ngi fii lu tax li wër yi lépp teew nañ fi tey ndax xam ni lii dëgg la sëñ Bàmba rekk fi teew tey waaye Ibrahima Ndiaye loolu nga leeral war na la ndax bu lislaam doon am bis tey kenn du fàtte làmbaay te ñooñee ñoo la meññ Moustapha Jaxate nekk fii ngeen xam ni ñetti xalifa toog nañ ci kër sëñ Bàmba defe naa Jaxate mooy seen maam kon bu ngeen toogee fii